الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله bokk yi noo ngi sant yàlla borom bi tabaraka wa taala di julli ci yonentam ba sallallahu alayhi wa sallama di leen nuyu ca lislaam muy assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kon insha allahu taala ñu fas yéene dellu siwaat ngir tàmbaliwaat ak yéen weneen saar wu bees muy suuratul fatxi euh, sun borom tabaraka wa taala mi ngi tàmbalee saar wi gannaaw bismillahi arrahmani arrahim inna fataxna laka fatxan mubina yàlla nee na inna niki ñun yàlla fataxna ubbi nañ fataxna ubbi nañ laka ñeel la yow muhammad fatxan ak ubbi mubiinan gu bir ubbil nañu la yow muhammad ak ubbi gu bir ubbi gu yaatu ubbi gu bari njariñ waaye nag baatub fatx fii alfatxu mooy ubbi léeg-léeg ci biir alquran baatub fatxu mën naa ñëw te du tekki ubbi waaye day tekki alxukm atte alqada léeg-léeg baat ci alquran mën naa ñëw nekk alfatxu waaye du firi ubbi waaye day tekki alxukmu am na laay bu nekk ci alquran sun borom tabaraka wa taala di wax ni rabbana aftax baynana wa bayna qawmina bilxaqi wa anta xayrul fatihin loolu li mu tekki mooy yow suñ borom atteel ñu sunu diggante ak diggante sunu gaañale mooy iftax maanaam rabbi xkum baynana bilxaqi wa anta xayrul xaakimin yow yaay ki nga xam ne yaay gën ji yaa gën a mën a atte ci way attekat yëpp kon baatu fatxu foofa atte lay tekki waaye tekkiwul ubbi beneen laaya qul yajmau baynana rabbuna summa yaftaxu baynana bilxaqi wa huwa alfattaxu alalim nee na waxal ni ko yàlla suñ borom de moo ñuy dajale bu ëllëgee ñun ñëpp waaye nag daal di ñuy dëgg summa yaftaxu topp mu atte baynanaa sunu diggante bil xaq ci dëgg wa huwa alfattaaxu alalim yàlla mooy ki nga xam ne moom mooy attekat bi nga xam ne moo xam lépp jaam bi li nëbb ak li feeñ moo tax bu ëllëgee moom rekk ñu mën a atte beneen laaya in tastaftixu faqad jaakum alfatxu su fekkee da ngeen di ak atte sun borom tabaraka wa taala dana leen andilu atte wa in tantahu fa huwa xayrun lakum su ngeen bàyyee nag di lor yonent bi ak ko moy mooy li gën ci yéen kon alfatxu mën naa ubbi alxukum waaye it alfatxu it ci alxuraan mën naa ubbi ubbi mën naa tekk ubbi léegi nag alfatxu fii lan la ci borom bi tabaraka wa taala jublu innaa ni ki ñun yàlla fatax naa ubbi nañu ban ubbi la yàlla jublu am na lenn ci borom xam-xam yu firi ji ñu borom bi lim ci jublu mooy ubbig màkka ga la borom bi di wax xu màkka mu ni yàlla mu ni ko ubbil nañu la màkka muy ubbi gu bir ubbi gu bari njariñ ci lislaam ubbi gu xéewale lool ci lislaam yeneen i boroom xam-xam ni déedéet suñ boroom waxul ubbig màkka gi ci laaya ji ndax laaya ji ba muy wàcc fatxu màkka amagul ñu ne ah kon lu yàlla di wax ci laaya ji ñu ni nañ ko wax fatxu sulxul xudaybiya waaw ñu ni sulxul xudaybiya amul fatxu di loolu ab programme la ab ab mbir moom bu xewoon rek maanaam li xewoon mooy ca juróom-benneelu at ca gàddaay ga yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa géntoon dem Makka ànd ak saxaaba yi di umra ji mu xëy rek daañu ne saxaaba yi waaj leen ñu dem umra ji saxaaba yëpp waaj kontaan lool ndax boobu jamono ñëpp a ngi fexe ngir rey yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu daal di waaj dem màkka ba ñu àggee nag waa màkka yëpp dégg ne yonent baa ngi ñëw ànd ak i saxaabaam di omra ñu dox digganteem ak kaaba gi ni ko doo fi doo ko fi defee léegi nag problème am nag ah damay dem doo dem problème boobu nag mooy sulxul xudaybiya ndax yéen a ngi dégg loolu mooy as sulxul xudaybiya léegi ba ko defee booba képp koo xam ni day ñëw màkk foo loo mën a def ak noo mën a doon ci ab noon boo jëmee kaaba gi kenn du la wax dara waaye nag boo jë bu dee yonent bi la ñu ne ko doog fi defee problème am ñu ne ko doo dem gaa yi génne seen i jaaseeg seen i yët seen i xeexukaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam ne lii problème lan mën na raa indi jafe-jafe mu ñu leen kon bàyyi naa ko maa ngi delluwaat màkk ba déwén kon ñu ne ana ubbi ga waaye nag ubbi gi yàlla di wax fii mooy ubbi gi mu ubbi xolu nit ñi ñu dugg si ci lislaam kero maanaam lislaam bu doon kenn kennay dugg ci lislaam kenn wala ñaar wala ñett keroog yowmul xudaybiya ay mbooloo mbooloo groupe groupe ñoo ñëwoon di dugg ci si lislaam keroog ak ponkali yéefari màkka ya doon dugg ci ci lislaam keroog am na ku ñuy wax euh, Suhayl ibnu Amr mu ngi bokkoon ci ponkal yi gënoon na mag ci waa Makka ca ñuy weddi woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokkoon ca ñañ daan déglu ca yéefari Makka ya bokkoon ca ña daan jël décision ca yi Makka ya ñu bëggee lor yonent bi keroog biñ taxawee yonent bi ni léegi nañ bind benn pacte ñu jéem a yéwénoo defaroo bàyyi problème yi ñu dem ba déwén daf ne ko Aliyun kaay liir leetar bi Ali taxaw di liir leetar bi daal di tàmbali ni bismillahi arrahmani arrahim hada ma salaha alayhi muhammadun ibnu muhammadun rasulullah suhayl ibnu amr mi ma lay wax moo ne ko hey taxawal noppil bul wax arrahman arrahim bu ko wax ndax ñun xamuñu kan mooy arrahman xamuñu koy arrahim laa na laa naarifu arrahmana wala naarifu arrahima xamuñu kuy rahmaan xamuñ kuy rahim ndax ñun gëmuñ ko bindal bismika allahuma yem ci loolu xamuñu ko yàlla xamuñu ki ngeen di wax ne kooku mooy kan aliin continue mu ni hada ma salaha alayhi muhammadun rasulullah suhayl ni ko dindil rasulullahi gi na dañ ndax rasulullahi googu ngay wax yéen yéen a ko xam xamuñu ko ñun gëmuñu mooy rasulullah te ñun sax loolu moo tax ñuy xeex ak yéen bi maanaam baatub rasulullah gi moo tax ñuy xeex ak yéen kon na dañ ba set moom Suhayl kon bindal Muhammad doomi Abdullah mu jeex loolu lañ xam waaye ay Muhammad rasulullah xamuñu ko keroog bi yowmul Xudaybiya passé bañ bam jeex Suhayl mii ma wax ak ni tare metti lool ci la dugg ci ci lislaam keroog bokk ci ponkal yi gën a mag te ñu toppoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog ba Aboubacar programme xeex ak ñi weddi woon joxe azaka Omar ibn al-Khattab moo ñëw ne ko Aboubacar kayfa tuqaatilu man qaala laa ilaha illa allah Omar ni nan ngay demee di xeex ak wax laa ilaha illa lu tax ñoo koy def moom Omar de Suhayl mii ma lay wax keroog naqañi ni mu méttee moo ñëw ne ko Omar wallahi lanuqatilannahum xatta yaslimu danañu xeex ak ñoom bañ dugg ci lislaam gëm yàlla ak yonentam fii gëmuñu rasulullah dañu rayante ak ñoom xoolal ñaari différence yi sëriñ bi moo tax ñu ne la fatxu gi yàlla di wax mooy keroog ubbi gi mu ubbi xolu jaam ñu déggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ànd moom topp ko kon yàlla ne ko innaa ni ko ñun fatax naa ubbi nañu laka ñeen la fatxan ak ubbi mubiinan bu bir ubbi bu ànd ak dimbal bu ànd ak jàppale lool nag bu ànd taxawu taxaw lool teg mooy inna fataxna laka fatxan mubinan dégg ko li yaxfira waaye nag ngir mu jéggal est que doo fay rajo bi sëriñ bi li yaxfira ngir mu jéggal allahu yàlla la ka yow muhammad maa taqaddama la nga xam ni jiitu na ko min zanbika ci say bàkkaar wa maa taaxara ak la nga xam ni nag defagoo ko ci bàkkaar maanaam yàlla jéggal na yonent bi alayhi salaatu wa salaam bakkaaram yi nga xam ne jiitu na ak bàkkaar yi jiituwul nañu jàngat bu baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam donte amuloon bàkkaar waaye léegoo-léeg mu def loo xam ne suñu borom dana ko ca wax dara maanaam keroog ba mu ne yàlla yónni ci yéen ab yonent ngeen di dagg dagg ab tànkam di damm ab bëñam nan ngeen di texee dugg àjjana keroog yàlla def ni ko laysa laka min al amri shay'un a ah, mbir yi nag sa yoo nekkut ci maanaam njuunte yu mel noonu léegoo-léeg ci la ko suñ borom bi daan wax ak moom wala keroog ba mu jiitee ba mu jullee naafeq ba yàlla ne ko wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan wala taqum ala qabri yu mel noonu loolu la ko borom bi tabaraka wa taala ak su fekke amoon ay bàkkaar lépp yàlla jéggal na ko ko ñun ñoo ko fay day yuux rek dégg nga ko aca bismillah yàlla jéggal na ko mboole mi bàkkaaram lim def ak lim defagul maanaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam dongu dongu moo masa am yàlla jéggal ko bàkkaar yim def ak yim defagul ci àdduna ba àdduna daj waaye nag jàngat bu kéemtaanee ngi ci mbir yi sëriñ bi maanaam mboolem mboolem xadis yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale mboolem ay xadiisam yépp laa wax nag amul benn xadis bu yonent bi di jàngale di wax ni yàlla dana jéggale bàkkaar maanaam xadis bu jéggale bàkkaar bu yonent bi mas a wax amul benn xadis bu mu wax boo xam ne dana ci waxaale ni yàlla dana la jéggal bàkkaar yi ñëwagul ba mu des ñaari xadis maanaam ñaari xadis képp la yonent bi mas a wax waxaale ci ni ku def nangam yàlla baal la bàkkaar yi ñëwagul ñaari xadis képp la te benn bi am na ñu ko jam ni wérut bu njëkk bi mooy ban mooy xadis bi yow mu arafa nee na ku woor bi su arafa yàlla jéggal ko bàkkaar yi at mi weesu ak bàkkaar yii di ñëw kon loolu bàkkaar yi ñëwagul la ak ban xadis mooy salaatu tasbix bi ñu jàngale ba muy wax ak ibnu abbas ni ko kaay ma waxal la fukki mbir yoo xam ne boo ko defee yàlla dina la baal sa bàkkaar yi nga xam ni moo bees ak yi beesagul maanaam yi ñëw ak yi ñëwagul yi njëkk ak yi njëkkul awaluhu wa axira bàkkaar yu njëkk bi ñu mujj yëpp dana baal bu mooy ñaari xadis yi yonent bi mës na jàngale benn xadis wax ni yàlla dina la jéggal bàkkaar yi yow yi paase rek yi paase rek waaye nag yàlla jéggal yonent bi bàkkaar yi ñëw ak yi ñëwagul te moom rek a ko am waaw ndax dafa tax yonent bi sàggan wala ndax dafa tax mu taayal am de sëriñ bi kenn ci ñun fii waxuma la yàlla de waaye kenn ci ñun dong bu demoon ci kër sëriñ ba sëriñ ba ni ko yow mii day defal nga ma loo xam ne yàlla baal na la sa bàkkaari tey ak ëllëg kooka dootul liggéey dara kooka day daal day daal di falu buur danaan man texe naa ndax sëñ bi nee na yàlla baal na ma bàkkaar yëpp kenn ci ñun bu demoon sëñ bi ni koy yow mii day daal di raay bopp bi ne ko yow àjjana nga jëm kooka day daal di pare ci def lu baax looloo waral nag ñu baree baree baree bare ci ñenn ñi di def ay mooy yàlla léegoo la nga sëriñ ku ñu woowee sëriñ sañ a taxaw def ak mooy yàlla ba noppi ni ñun ay sëriñ lañ ndax xam nañ li def ba yàlla baal waaye fekk léegoo-léeg dañ leen di dig ni kat jëf sàngam ku ko def yàlla jéggal na la say bakkaari tey ak ëllëg te loolu amul fenn waaye yonent bi alayhi salaatu wa bi ko yàlla ne yàlla baal na la bakkaari tey ak ëllëg daa gën a la keroog ci hadisu Shuba ibnu Mughira ibnu Shuba day julli guddi di julli ba ay tànkam neewi xab hatta tatawarramat qadamaahu ba ay tànkam dee wi yaa Aïcha ni ko waaw yonentab yàlla bi te ngaa bàyyi sa julli gu metti gi ndax yow yàlla baal na la sa bàkkaari tey ak ëllëg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko afala akunu abdan shakura waa xanaa bu ma yàlla baalee samay bàkkaari tey ak ëllëg xanaa ni ko ma ab jaam buy war a sant yàlla kon kay bàyyil ma sant yàlla ci julli gu bari waaye tamit li yaxfira laka laahu encore nañ dem ci ida jaa nasrullah ida jaa nasrullahi walfatxu ah wa raayta annaasa fi diinillahi lu ci topp aha was waaw góor wastaxfirhu maanaam boo xoolee tey fii yàlla ne ko ubbil naa la ubbi gu kawe ba noppi ne ko ngir yàlla jëkkale say bàkkaar ñu demaat ci beneen saar yàlla ne ko bu ubbi nga dikkee kaw ñépp ci dugg ci lislaam na nga jéggalu yàlla lu ngeen ci jàng sëriñ bi loolu mooy nit su la suñ borom defalee ngañaay dangay da ngay taxaw delloowaat cër bi sa borom wan ne ko kat lu ma gañe gañe gañe maa ngi lay jéggalu yow suñu borom ndax ab jaam laa dong ci sa kanam ko doy di laa ci sa kanam ko bari bàkkaar laa ci sa kanam kon la borom bi mën a defal fàttali ko say bàkkaar tey jéggalu yàlla subhanahu wa taala tey wattandi ko nag bàkkaar dégg ngeen wax bi yàlla ni ko wayu tim wayu timma waaye nag mu daa di matale ni'matahu ay xéewalam alayka ci yow muhammad yàlla matale na ay xéewalam ci yow yéen xéewal yàlla matale ci moom mooy xéewalug yaatal gi mu yaatal lislaam ba mu àgg fépp xéewalug doomu aadama yi di dugg ci lislaam xéewalug doomu aadama yi di déggal yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mooy yàlla matale na sa ak xéewal ci moom waaye it keroog ba di wàcce al yawma akmaltu lakum diinakum lu ci wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum lislaama diinan nee na ko yàlla tey la matal lislaam ji ba mat sëkk diina ji mat na waaye nag matale naa samay xéewal ci yéen muy lan xéewaluk lislaam gu leer naññi xéewaluk njàngale mu leer nañ xéewaluk risaala gu mat sëkk kon doy na wa raditu lakum lislaama diinan tey lislaam ji kon mat na sëkk bu leen ci dolli dara wa yutimma nicmatahu alayka wa yahdiyaka mu daal di lay jubal yow Muhammad mu daal lay jubal siraatan ci aw yoon mustaqiman bu jub xocc yàlla sa borom jubal na la ci aw yoon jub xocc nga tegu ci yoon siraatan mustaqim waaw yonente yàlla bi xanaa daa dëng ba yàlla naan ko ma jubal la ci aw yoon wu jub xanaa daa jubul ba yàlla ne ko naa la jubal oxo kay jub na xocc jub na baax na lool tegu na ci siraatal mustaqim waaye nag waxin bu yàlla di wax la ndax yàlla wax na ci beneen laaya mu ne yaa ayuha alladina amanu aminu yéen ñi gëm yàlla gëm leen yàlla xanaa gëmuñu yàlla ba pare <laughs> waaye day feddali ni gëm leen a baax gën leen a jub gën leen a sax ci siraatal mustaqima gi waaye nag yàlla bëgg naa wan yonent bi ne ko maa la defar ba nga jub xocc ndax yow yaay bi xam nga koo xam ne yàlla def na ko yow yaay uswa yow yaay exemple bi nit ñi war a xool kooku dafa war a normal moo tax yonent bi dund na ba génn àdduna kenn mësuta bind benn bàkkaar bu mu def wala am mas ngeen ko dégg ñu ne ah yonent bi day am na benn bis mu def bàkkaar sàngam ndeysaan mësta am wala ñu ne ah yonent bi de dund na ba génn àdduna ñu ne ah bis sàngam di def na lu rëy loo xam ne waru ko war a def mas ni ko dégg mukk dund na ba génn àdduna amul dara dara lu ma sa def ci loo xam ne bàkkaar la wala ak ma yàlla wala loo xam borom bi da ko ci jéppi nit ku mat sëkk la ku jub pocc moo tax borom bi ne ko jéggal naa la li nga def ak li nga defagul donte deful dara waaye nag teg naa la ngay ku baax di ku wir ba nga nekkee ndaw laa laa yeble ay nit ñu ñëw ubbi sa dënn raxas ko bam seet wecc nga nekk ku baax nga nekk modèle bu fekkoon ne ab inspecteur mi ngi nii ñu ne ah concours bi kat dañ ko war a def képp ku at mi da ngay dem doon jàngale kat weeru dee ñu di la fay xaalis bu bari waaye nag pour nga bokk ci concours bi dafa am demande booy def demande manuscrite waaye nag demande bi ngay bind exemplaire bi inspecteur bi moo ko defar képp ku fi indi demande boo xam ne nekkul exemplaire u inspecteur bi doo jàll gars ku bëgg jàll nooy def foo mën a jaar di nga war a exemplaire inspecteur bi wala déet kon yàlla exemplaire bi mu ci tegal mooy muhammad alayhi salaatu salaam ku bëgg a jàll moom ngay xool ku dem yomal qiyaam andi woo yonent bi doo jàll ku dem yomal qiyaam andi woo yonent bi doo jàll ku bëgg jàll da ngay andi yonent bi andi yonent bi lan mooy da ngay mel ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ngay teg sa tànk fu yonent bi tegoon tànkam da wax li mu doon wax di def def di bañ li doon bañ maanaam doonal yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu mooy lan walakum fi rasulillahi uswatun xasana yéen day yonent bi doy war na leen doy sëkk ngeen def ko ab royuwaay ngir ñan liman kaana yarju llaha wal yawma al axira yaakaar texe ëllëg yawmal qiyaam royal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah ku ko royul nag doo texe bu yawmal qiyaamatee waaye nag yàlla ne ko wa yansuraka ay li yàlla defal yonent bi bari na yàlla ne ko wa yansuraka waaye nag yàlla dimbale la wa yansuraka mu dimbale la allahu yàlla nasran ak dimbale azizan bu bu bari boo xam kenn mënu koo mënu koo mënu koo mënu koo mënu xeex ak dimbale googu kenn mënu ko a not aziz mooy ku kenn mënta not yàlla dimbale na la dimbale goo xam ne kenn mënu laa not loolu la ko borom bi tabaraka wa taala defal dimbale goo xam ne kenn mënu koo jam lan mooy dimbale gi mooy islaam gi mu ko jox boole koog ay sahaaba yu koy jàppale boole koog ñu ko gëm lool di ànd ak moom di ko dimbale ci lépp lu mu bëgg wa yansuraka allahu nasran aziza yàlla nag mu teg ca mu ni huwa moom yàlla allazi mooy ka nga xam ne anzala moo wàccee assakinata ak dal fii qulubil muminina ci xolu way gëm yàlla ya kon yàlla moo wàccee ak dal ci xolu way gëm yàlla ya keroog xam nga yonent ba mu jógee Madina de màkk ne day omra waa màkk yëkkati seeni ngàndaay ni ko doo ko fi defee saxaaba yépp ànd ak dal ba yonent bi ni kon nañ ko bàyyi dem ba déwén wallaay su fekkoon ne rayante rekk leen ñoroon keroog ñu ñu faagagal waa Màkka waaye nag yàlla daal di dalal seeni xol ba ñu ànd ak dal ni tekk ni teey defuñu dara yàlla moo ko def huwa alladi anzala sakinata fi qulubihim yàlla moo wàccee ak dal ci seeni xol moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bari na lu daan ñaan yàlla mu may ko daluk xol daan na bari lu mu daan ñaan yàlla mu may ko ak teey ak dal bala ngaa def dara xalaat ko xalaataat ko keroog bu saxaaba yi xeexoon ak waa màkka faagaagal leen est-ce que fatxu màkka dana amaat ginnaaw bi te fatxu màkka bi mu amee na fii diinillaahi afwaajan est-ce que loolu dina am koon waaye nag suñ borom ni dal leen rek bàyyi leen mu sedd dellu leen ba déwén ci dégg dégg ndigal gi ngeen dégg ndigal nag ci laa leen di dimbalee ba faw nag moo tax day rek ñaan yàlla mu def seeni xol ak dal léegoo nag doomu aadama def am mbir boo xam ne ñàkk dal moo ko ko def su noppee lan lay def day daal di rëccu léegoo nag doomu aadama def loo xam ni xol bu teey ñàkk xol bu tey moo ko ko def loo su paree lan lay def rëccu wala loola yàqal ko lu baree baree baree bare ci gundam moo tax suñ boroom rek kay def ak dal ci xolu doomu aadama yi xoolal yonent yàlla Muusa alayhi salaatu salaam yaayam ba ko yaayam jëlee sànni ko ca ndox ma kan moo def ak xol bu dal ci xolu yaayu Muusa maanaam euh, na dafa woon ku juddu di góor nañ ko rey Muusa juddu doon góor yàlla wax yu yaayu Muusa ni ko ñaar a fi nekk ñaar nàmpalal gone gi te bul ragal dara kenn du ko laal wala nga jël gone gi sànni ko ci ndox mi nga bàyyi kook man sëñ bi ñaar yi la moo ci gën a dal xel nàmpalal sa doom te sa xel na dal wala jëlal doom ji sànni ci ndox mi ta sa xel dal lu gën a dal xel bu doon yéen nàmpal ko waaw góor it comme ci doonoon da ngay wax bàyyi ma téye saa doom ji waaye ndox mi moom du ma ca teg sama doom ji baal ma téye ko sama bopp di ko nàmpal lu mu fa xew xew fa ci man moo tax entre parenthèse sëriñ bi entre wallahi kenn ku ci nekk war naa fonk fonk yaayam bu baax gis nga ñi nga xam ne yàlla natt na leen ñuy yar ay ganaar bu ñu càmbaree ganaar yi ñuy yar danañ fonk seen ndey bu baax lu tax ma jël exemple ci ganaar yi xoolal ganaar bokk na ci rab yi gën a ragal ci li yàlla bind maanaam boo duggoon ci mburu gi rek ganaar yépp day daw boo ko bëggoon a jàpp fii dëkk bépp daañ leen dégg kook kook kook yi bëgg leen a rey doo ko bëgg doo ko mën a jàpp ndax ragal lu feek sonnul doo ko jàpp mbaa nga duggoo ko ci roq bu sew pour ban koo naj foofa waaye yàgg moom rek doo ko jàpp ndax ragal waaye ganaar bi bu demee ba nen ba nen ba boo ko bëggoon laal da lay cof day taxaw résister bëgg a rayante ak yow la moo tax lim boof te kat mën naa bañ a am doom kat ndaa boof rek xamul doom dana judd baa du judd waaye yaakaar na doom rek commencé na léegi bëgg bëgg wut pour défendre kii judd si ah, bi loolu boo ko xalaatee war a fonk sa ndey ñu dema dema dem ba nen ya toj doom ya judd di ciib ciib bi foofu moom boo bëggoon a ñëw sax day day jël doom yi teg ko ci gannaaw dox sa digganteeg doom yi nag boo reppee mën naa tëb sa kaw yaw moom ganaar ki est-ce que xalaat nga li ma la wax baax loolu mooy yaay ak doom loolu mooy yaay ak doom lu ragaloon a démb parce que moom rek la woon waaye tey comme am na doom bëgg naa xeex ak yow même boo yoroon jaasi mbaa paaka da nga tëb sa kaw boo bëggee laal doom yi kon ñun nan lañ war a mel ak suñuy ndey moo tax gis nga keroog maa ngi fekk benn ganaar guy nen ci ngay xalaat rek bi ki war na fonk ndeyam bu baax maanaam ngir ganaar gi nen fu nekk dem na fa tiiw tiiw fu ne dugg na fa xog-xog bu bari nag lay àndal ngir mu waddal nen bi ci suuf day ñenkaliku maanaam day wonk wonk bu metti ñenkaliku bu mette mette metti ngir waddal nen bi léegi nag nga fekk mu nen ba àggal nen bi day tax ripp deret ndax fam jóge metti ga metti lépp rek ngir doom ji <laughs> doomu aadama léegi nag mu jur ba noppi de léeg-léeg mu am doom coono yu méttee méttee métti dal ba bu amee doom ba noppi du xamante àdduna day xam wala mu nelaw waaye nag bu demee ba yeewu la bi njëkk wax mooy ana doom ji fàtte na jooy ya fàtte na yuux ya fàtte na xam nga bu yeewoo rek ne ana doom ji loolu la njëkk wax léegi nag yoo doomu aadama nga judd ba màgg ñëw di fonto sa ndey subhanallah léegi nag ñu delluwaat ci yonent yàlla Moussa ak yaayam وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين lii nag mooy dal xel dëgg yàlla ne ko nàmpalal walla nga jël teg ci ndox mi bàyyeeg man yaay ji jël def ci kees gi teg ci ndox mi xanaa loolu mooy wóolu yàlla mu teg ci ndox mi yàlla ne ko wàññikul dem danaa la ko sàmmal ba delloosiwaat ko ci yow te danaa ko defab yonent mu daal di dal xel dem kan moo def ak dal dalul xel ci moom yàlla loolu amul kenn ci adduna ku koy wax ni ko jëlal sa doom ji bees ji nga teg ko ci ndox mi mu teg amul kenn ku ñu koy wax nga def waaye nag yàlla dalal xelam ba mu am xel mu dal ak fit bu toog ak wóolu yàlla mu teg doom ji ci ndox mi bàyyi ko mu dem ku ko def yàlla kon yàlla nañu yàlla may ak xol bu dal ak xol bu feex lépp luñ bëgg a def yàlla nañu yàlla xalaat loo liñ war a def inconvénient bi war a am ak njariñ bi war a am yàlla nañu ko yàlla dimbalee kon huwa alladi anzala sakinata fi qulubil muminin yàlla moo wàcce ak dal ca xolu jullit ña ba defu ñu dara keroog waaye nag li yasdaadu ngir yàlla yokku ngir ñu yokku ñoom imaanan ak gëm yàlla maa imaanihim ànd ak seen gëm yàlla ga kon gëm yàlla day yokk waaye nag gëm yàlla day wàññi ko de sëñ bi al imaanu yazidu bi taati wa yanqusu bil maasiya gëm yàlla day yokk ci topp yàlla waaye nag day wàññi ko ci mooy yàlla doomu aadama bi lu muy gën di topp yàlla rek ak gëm yàlla di gën a yokk waaye nag wa yazidu bi dikr bil istigfaar bi qiraati al quraan al karim nit ki li mu gën di jàng alxuraan gëm yàlla day gën di yokk lu muy gën di tudd gëm di yokk lu muy gën di jéggalu borom bi gëm yàlla day gën di yokk waaye nag lu muy gën teewee jataay yu mel nii it gëm yàlla day gënd di yokk saxaaba yi daan ko wax yonent bi ne ko ñun de buñ toog ak yow dañuy gëm yàlla gu tar lool waaye buñ demee rek day mel ni que dafa rocc mu ne ko toog gi ngeen toog ak man moo ko waral maanaam mu di leen fàttali nag. kon déglu fàttali léegoo leeg da lay yokk ak gëm yàlla ndax ku gëm yàlla fàttale ko gëmloo yàlla ku dugg ci lislaam fàttale ko dugal ci lislaam mboolem ku dugg ci lislaam dañ laa waar nga dugg ci lislaam mbaa nga dégg baatum alquran buy jàng mu neex la nga dem gëstu lislaam dugg ci lislaam eh, lañ ko yàlla yombal gëm yàlla gu yokk waaye nag day wàññeeku su fekkee nit kaa ngi topp di mooy yàlla yàlla nañ ci yàlla musal yàlla mu ne walillaahi ñel na yàlla junubu samaawaati soldaari asamaan yi wal ardi ak suuf yàlla moo moom soldaari asamaan ak soldaari suuf mooy keroog ba waa Màkka ne ko du ngeen fe umra jullit ña dal delluwaat ci jàmm yàlla ne na ko dellu leen ndax maa moom junubu asamaan ak suuf soldaari asamaan mooy ñan malaaka yi yàlla léeg-léeg mu yebal malaaka yi ci doomu aadama ngir ñu jëflante ak ñoom parce que soldaari suñu borom lañ tabaraka wa taala keroog xare badar ba mu taree ba metti lool yàlla lu dafa yebal ay malaaka ñu ñëw ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir xeex ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam id yuuxi rabbuka ila almalaikati anni maakum فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب Did you stop? Huh? فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان nee na ko léegi nag malaaka yi ñëw nañ ànd ak yéen fexe leen ba renforcer jullit ñi ngeen dalal leen léegi nag aca rayante leen dóor leen kon yàlla am na ay soldaar ci kaw asamaan waaye nag yàlla am na ay soldaar ci kaw asamaan yu bokkut ak malaaka yi muy ngelaw li ngelaw li soldaar yi suñ borom la bu ko neexoon léegi mu faagaagal àdduna ci ngelaw li wa fi aadin id arsalnaahu subhaanallah id arsalnaa alayhim arriixa alaqim ma tadaru min shay'in alayhi illa jaalathu karramim nee na fàttalikul aat nañ toll ci ponkal ak ci rëy ba yàlla yabalee ngelawam mu ñëw ci ñoom muy ngelaw lu ñàkk barke ngelaw lu àndul ak wenn yiw yàlla mu ni fu ngelaw lu jaar rek da koy ramassé maa tadaru min shay'in atat alayhi illa jaalatu karramim fu ngelaw lu jaar rek def ko doom kon ngelaw li soldaari suñ borom la abraha keroog ba mu bëggee toj kaaba ga yan soldaar la yàlla yebal picc la yàlla yebal ñu leen di sànni ay xeer ba ñu dee ñoom ñépp kon yàlla bari nay soldaar kon walillahi junudu junudu samawati wal ard ya ayuha alladina amanu udkuru nicmatallahi alaykum yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla fàttaliku leen xéewaluk yàlla ci yéen xéewal gi leen borom bi defal id jaatkum junudun lu ci topp fa arsalna alayhim junuudan déedéet fa arsalna alayhim riixaw wa junuudan lam tarawha nee na fàttaliku leen jamonoy ahzaab ba yéefari ñëwee di xeex ak yéen ma indi ay junuud muy ay soldaar muy ngelaw li ak yeneen soldaar yoo xam ne gisoo leen muy malaaka yi kon suñ borom bi am nay am nay malaaka am nay soldaar waaye nag ku bëgg a mucc ci soldaar yi suñ borom yi nooy def da ngay jéem a baax inna waliyiya allahu alladi nazzala alkitaaba wa huwa yatawalla saalihin yonent bi nee na man day yàlla moo may dimbali boppam moom mi nga xam ne moo wàccee alquran di ndax yàlla mooy dimbali képp ku baax yàlla am nay soldaar ci kaw suuf muy lan taw bi wax naa ko soldaar yàlla yi jógee ci kaw la ba tey feebar soldaar yàlla la nit léeg-léeg nit nguur yi soxor yi soldaar yàlla lañ waaw ndax nit ki mën naa feebar feebar bu ko tëlee lool lool waaye nit mën naa feebar ñu baree baree bare loru ci ak feebaram loolu yëpp soldaar yi suñu borom la léeg mu def ab dëkk wàccee fa benn président bu bon bu soxor lool muy lor askan wi guddeeg bëccëg te duñ ci mën dara loolu soldaar suñ borom yi la waa nag day fekk doomu aadama yi ñoo kàccoor moo tax yàlla def loola wala mu wàcce ci ñoom benn àttekat boo xam ne du àtte dëgg mukk benn ñaar mu ñu la mandat dépôt benn ñaar mandat dépôt benn ñaar mandat dépôt benn ñaar mandat dépôt xëy na du ko teg ci yoon loolu léegoo-léeg borom bee koy def ci aw askan wu bon maanaam askan wi mën nañoo ñàkk déggal yàlla yàlla yebal ci ñoom àttekat boo xam ne jubul lu waaye def mu tëj la ci kaso bi lu waaye def mu tëj la ci kaso bi nga ñàkk sa famille ñàkk sa alal ñàkk lu ne ñàkk loolu yépp sa suñu borom la tabaraka wa taala yàlla nañu yàlla musal nag ci mel noonu moo tax suñ baaxee rek yàlla muccal ñu wa huwa alladi yatawalla saalihin ko kon mbir maa nag yàlla mu ni wa kaana allaahu yàlla nekk na aliman di ko xam xakiman di ko xereñ lii du xel a ngir yàlla dugal al muminina jullit ñu góor ñi wal muminaati ak jullit ñu jigéen ñi jannaatin àjjana yoo xam ni tajiri dana daw min taxtihaa ci suufam al anhaaru ay dex xaalidiina ñu di fa sax fiihaa ca biir àjjana ya kon yàlla moo ko def muy xéewalub jullit ñi ngir mu tàbbaleen àjjana àjjana yoo xam ne ay dex day daw ci suuf anhaaru min maa in gayri aasinin wa anhaaru min labanin lam yataxayyar taamuhu bi ci topp wa anhaarun min xamrin lazzatin lish lu ci topp wa anhaarun encore min asalin mus musaffan lépp ay ay anhaar <laughs> lépp di ay anhaar bi dex la bii meew la bii lem la bi ndox mu neex la ah dëgg la de noonu la demee lépp xéwalu jullit ñi la waaye nag la ci gën a neex yàlla mu ni xaalidiina fiihaa ñu di fa sax àjjana boo fa duggee doo génnaat da nga fay saaba faw am nañ ko yàlla defal waaye nag wayu kaffira yàlla mu ni mu jéggal anhum ci ñoom sayi aatihim seen ñaawteef yàlla jéggaleen seen i ñaawteef wa kaana mu nekk daalika loolee indallahi ca yàlla fawzan di ak texe aziman di gu màgg loolu mooy texe gu màgg dugg àjjana moo tax sax fii nii wayu tama ni'matahu am nañu ko firee àjjana nee na yàlla dafa jéggal yonent bi ay bàkkaari tey ak ëllëgam ba noppi nag wa yutimma ni'matahu mu matal ay xéewalam ci moom mooy lan dugal ko àjjana baal na ko bàkkaaram tey ak ëllëg dugal ko àjjana waaye daal texe gu mag gi mag gi ak xéewal mag gi mooy tabbi àjjana mooy texe gu mag gi yàlla ko yàlla defal waaye nag bu yàlla defee loolu jullit ñi wa yu'azziba mu daal di mbugal al munaafiqiina naafeq yu góor ya wal munaafiqaati ak naafeq yu jigéen ya wal na ak bokkaalekatu yàlla yu góor yi wal mushrikaati ak bokkaalekatu yàlla yu jigéen yi azzanniina ña nga xam ne ay way njort lañ billaahi ci yàlla zanna saw i njort gu ñaaw gis nga keroog ba yeneen bi di waaj de bàkk dafa am ñu ne waaye kii dafa repp kii nga xam ne li ko yéefar yi di waajal waa màkk di ko ko waajal nga xam ne tuuteetee ñu ñëw faagagal madina moom muy day dem madina day dem màkk di aji kii buy àgg ñu di ko rey islaam jeex benn yoon yàlla mu ne ñooñee doon njortu njortu yu ñaaw yooyu ci yàlla ak yonentam danañ bokk ci mbugal mi waaye njortu gu ñaaw ba tey mooy koo xam ni yow de ci sax mooy yàlla yaa ngi njortu ni yàlla mën na la cee jéggale ndax fii ci sunum réew malheureusement ci lañ dëkk benn waaye toog na fii mu ni taalibe diw sàngam sañ naa naan sàngara te du dem sawara taalibe diw sàngam su ko neexee mën naa mooy yàlla te du dem sawara taalibe diw sàngam bu ko neexee du jullit te du sawara kooku day njort na ci yàlla njort ñaaw njort gu dul dëgg amul benn taalibe diw sàngam bu dul bu dul jullit te dem àjjana yàlla moo ko wax yàlla mu ne ku dul julli doo jullit yéefar may boo nga tudd taalibe bay boo man mbalit la wala nga tudd man ku ki laa wala nga tudd sërif laa wala nga tudd majid laa wala nga tudd hakim laa wala nga tudd rahim laa wala rahman laa noo tudd rek boo dul yàlla ko wax da nga wax bi bàyyi ci àdduna li fekk doo julli yàlla ne na ab yéefar nga waaye ba noo mën a tudd bàyyi rahman laa rahim laa bàyyi Malick laa boo dul julli suñ borom ne na da nga tàbbi sawara yàlla nañ ci yàlla beneen ba ci topp yàlla na ne képp ku naan sàngara it am nga bàkkaar bu mag ak noo mën a tudd bay boo nga nekk doomu sëñ bu mag bi bay boo nga nekk doomu borom barke bi mbaa nga nekk koo mën a doon ci àdduna fekk naan ko sàngara nga yàlla mu ne def ko bàkkaar bu mag nga boo ci dee sawara nga jóg yaa ngi mooy yàlla jigéen ñi bay boo nga xam astaxfirullah yi am ci àdduna bépp jàngal alxuraan ba mbokkal doonoon sëriñ daara waaye booy mooy yàlla sawara nga jëm boo ko bàyyiwul man nga ko bàyyi nag tuub yàlla jéggal la mën ngaa bañ a nag dam ba yàgg nga tuub di julli yàlla jéggal la mën ngaa doon naan ko sàngara dam ba mu yàgg nga bàyyi ko yàlla jéggal la ngaa doon sax bokkaale katu yàlla dam ba mu yàgg nga bàyyi bokkaale tuub yàlla jéggal la li yàlla bañ mooy dee ca waaye nag gaaw ko bàyyi nag bul ma bu ma wax dee ca rek nga ni kon naa bàyyi ba ci kanam waaye bàyyi ko teel ko bàyyi moo tax lax lax dari nee na wa charte tawbati an na demo ala ma faata dégg nga loolu wax waaye avant loolu sax daf ni eh, wa tarkul maasiyati fi saatiha in kaana mutalabisan biha nee na bàyyil ba bàyyil bàkkaar ba ca saasa bu fekkee yaa ngi ko doon def in kaana mutalabisan biha bu fekkee yaa ngi ko doon def bàyyi ko ca saasa waaye nag damay bàyyi ba ëllëg wala yaqulu bu mu wax xataa yahdiyani laahu ba yàlla jubal ma bu mu wax na baax léegi léegi léegi ngeen de waaye it mën ngaa nekk ci masalan léeg-léeg nga nekk ci loo xam ne yàlla gërëmu ko yonentam gërëmu ko xamu ko nga nekk ci di nab nabee kërti kërti kërti kërti yow xam nga ni yàlla waxu ko yonent bi waxu ko waaye nag yaakaar nga ni baax rek nga nekk di ko def loolu as zanina billahi zanna saw ila zanina billahi zanna saw ila de maanaam yow daal nga ni nga ni man de bis bu jot danaa julli trent rakka avant tisbaar trente rakka après tisbaar vingt rakka avant takkusaan vingt rakka avant timis julli baaxul waaye nag yàlla waxul loolu yonent bi waxul loolu boo yaakaaree ne mën na laa yóbbu àjjana yaa ngi zanna saw i billaahi xam nga lu tax ngay zanna saw i billaahi mooy da nga ne lii ma xalaat moo gën baax li yàlla xalaat lii ma xalaat moo gën baax li yonent bi xalaat kooku zanna saw i la kon yemal ci li yàlla wax ak li yonent bi wax bu ci yokk dërëm li yàlla wax doy yow li nga war a bàyyi xel mooy li yàlla wax est ce ko sax ba yokk li ci bokkul <laughs> yal nañu yàlla sàmm dégg ko yàlla nag nee na alayhim ñoom ñooñu nga xam ne nag maa leen lim sànq muy naafeq yeeg zanna saw ibillaahi nee na alayhim yàlla wàcce ci seen kaw daairatu saw i ku lu bon ku mooy mooy mooy cercle mooy ku tumbal léegi nag cercle lu bon bu ñëwee rek ne la këlëf sa kaw xam nga ak paan paan dafa ku tumbalu bu ñu jëloon paan gi rek ne la ko këpp paan goo xam ne mi ngi tàng jër ñu ne ko këpp doo dee yàlla nag mu ne ku tumbaluk lu bon yàlla na këpp seen kaw mooy ñooñi ma wax alayhim yàlla na wàcc seen kaw daairatu saw i ku tumbaluk lu bon mooy sawara rek wa ghadiba mere na allahu yàlla alayhim ci ñoom yàlla mere na leen yàlla nañ ci yàlla musal ku yàlla mere ay koo xam ni ku bàyyi mere woon léegi rek nga am problème bu la bàyyi ni bul añ wala oustaz mere ne la bul añ ba ngeen ko yéen oustaz mere ne la bul ba ngeen oustaz mere leen bu leen ko de nag yàlla ba ngeen mu mere leen oustaz bi yàlla mooy yàlla oustaz bi ba ngeen oustaz mere kon ba ngeen yàlla mere leen déedéet waaw bëri waay kon wa xadiba mu mer allahu yàlla alayhim ci ñoom waaye nag wa laanahum yàlla rëbb leen rëbb mooy yàlla du la yërëm wa aadda yàlla préparé lahum ñeen leen jahannama jahannama yàlla nañu ci wa saa atta bon na masiran seenu mujj waay mooy naafeq yi léeg-léeg benn waay ji def dara bëgg a dem nga xam ne lii bu fa demee man na fa am jafe nga koy jéem a ruux pour mu dem loolu jikko naafeq la baaxul wala nga ànd moom di wax def ba ngeen dem ba ca mbooloo ma nga naan moom kay dafa doy waar quoi kii lii muy def nii waru ko def te yéen ko ànd def loolu jikko naa feq la ñooñu ñëpp yàlla nee na lii na leen dal wa saa a tab na masira seen mujj yàlla nañ ci yàlla musal walillaahi ñel na yàlla junuudu samaawaati soldaari asamaan wal ardi ak suuf wa kaana nekk na allahu yàlla azizan di ku am kattan lool kenn mënu koo not xakiman di ko xereñe lool moom suñ borom yàlla muy ko innaa ni ko ñun yàlla arsalnaaka yebal nañu la yow yonent bi shaahidan nga nekk koo xam ne kuy seede nga wa mubashiran nga nekk kuy bégale wa naziran nga nekk kuy xuppaate shaahidan mooy lan koo xam ne day seede yonent bi yàlla bi ab seede la kan lay seede ñun ñii lay seede bu ëllëgee yowmal qiyaam lu garaaw la ci moom nag yonent bi war dem ci yàlla ni ko maa ngi maa ngi ñëw di seedeel Omar Lo moo def lii moo def lii moo def lii maa ngi seedeel sëñ Mor Diop lii la def loolu loolu problème la moo tax keroog ba mu ne Abdullah ibn Mas'ud kaay nga jàngal ma alxuraan ma dégg Abdullah ni ko ah yow lañ wàccee alxuraan ci yow di mu ne ko waaw dama ko bëgg a dégg ci beneen làmmiñ bu dul sama bos Abdullah tàmbali jàng yaa ayyuhan naasu suuratu nisaa yi di jàng yonent bi di déglu muy jàng muy jàng ba ba àgg ci laayab fa kayfa ida jinaa min kulli ummatin bi shahidin wa jinaa bika ala haulaai shahida yawma idin yawaddu alladina kafaru wa asaw rasula law tusawwa bihim al ard wala yaktumuna la xaditha waaye bi mu àggee bi shahidin rek def na ko doy na sëkk doy na doy na abdoulaye nee na ma siggi xool yonent bi ay bëtam di bal rangooj di jooy jooy yu baree baree baree bare ba dee tuuru rangooj waxul ba bët yi di sot daf ne ko di ball ball mooy mu ngay jooy jooy metti lan lay jooy mooy yàlla ne ko yow muhammad yonent bu nekk dana ñëw yowmal qiyaam ànd ak ay gaayam di leen seede yow nag danga ñëw ànd ak sa gaañ yi sa xeet wi di leen seede moo xam ne lu diis a ngoog muy jooy lu diis a ngoog sëriñ bi moo tax yàlla dem ci teg mu ni bés boobee yawma idin yawaddu alladina kafaru wa asawu rasula nee na keroog ñi weddi woon yàlla te mooy yonent bi danañ bëgg nekk suuf keroog keroog dañuy wax yàlla yàlla teg maa maasal ak suuf si ma nekk suuf ay yàlla teg maa def suuf ma nekk suuf nga bañ maa àtte law tusawwa bihimul ard wala yaktumuna la xadisa waaye nag yàlla mu ne lu ngeen mën a làqatu dana leen gis bay bu ngeen taxaw rek ma àtte leen yàlla mu ne ko li tu'minu ngir ngir nu ñu gëm billaahi ci yàlla wa rasulihi ak yonentam ba waaye nag na gëm yàlla gëm yonentam eh yàlla yéen lay waxal nee na ngeen gëm yàlla gëm yonent bi dégg ngeen waaye nag nee na watu aziruhu nee na na ngeen na ngeen na ngeen dimbale yonent bi alayhi salaatu wasalaam isa yéen pare ngeen pour dimbale yonent bi ah maanaam yonent bu ñëwoon fii ci daara ji bëgg a yëkkati mool bi àtt na ko da ngeen ko seetaan mu yëkkati ko nu ngeen di def da ngeen di dem jàppale ko dimbale ko ndax lan ngeen bëgg am tuyaaba ndax lan ngeen bëgg yàlla yërëm leen léegi nag lii mooy dimbale yonent bi mooy lan gëm ko bu baax gël ko bu baax di ko topp bu baax di laajte lim mu doon wax ak li doon def ngeen di ko def loolu mooy dimbale yonent bi fii ak di ko màggal watu waqiruhu ngeen di ko respecté di ko jox cër maanaam yonent bi dañ kaa war a respecté ndax même bu yonent bi ne yàlla nee na bu wax ci kaw kàddu gi yonent bi fan la ko yàlla wax ci alxuraan bu leen yëkkati seen kàddu ci kaw kàddu gi yonent bi foo ko yàlla wax ci alxuraan ah waaw góor Muhammad laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi loolu moom war ngeen kaa xam ndax bëkk dem lañ ko firi kon yonent bu waxee waxal ndànk loolu mooy respecté yonent bi kon buñ naan yonent bi nee na ne leen tekk nopp déglu lu mu wax suñ nee ma wax nangam ngeen ni ko bismillah dañ ko def waaye nag yàlla commencé waat dellusiwaat ci moom mu ni watu sabbixu na ngeen sàbbal yàlla seen borom bukratan suba teel wa asilan ak ngoon da leen sàbbal yàlla suba ak ngoon da leen tudd ngoon da leen julli suba ak ngoon kon ñu yem foofu ci laay laay juróom-ñeent ba ëllëg ak jàmm ah wa tuazziruhu nee na mooy ngeen dimbale yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy dimbale ko ci diinam ji wa tuwaqiruhu mooy ngeen jox ko ci respecté ko ngeen wekk ko wekk baatu wolof mooy wekk wa tusabbixuhu ngeen di sabbal yàlla bukratan suba teel wa asilan ak ngoon dimbale yàlla ci diinam ji dimbale yonent bi ci diinam ji mooy di ko topp déggal ko ba noppi di ca waaraate nag di indi doomu aadama yi ci moom di leeral diina ji pour ñu xam ko loolu mooy dimbale yàlla ci diinam ji ak yonent bi respecté ko nag mooy boo déggee kàddoom bu ko jalgati mukk yonent bi nee na def leen lii bu ko jalgati mukk defal loola loolu mooy respecté yonent bi waaw su ma ñëwoon di leen ustaas nee na ngeen bale daara ji da ngeen ko bale wala du ko bale kon bu ngeen balee daara ji mooy respecté ngeen ustaas wala de ki ko balewul respecté wul ustaas waaw boore très bien kon nag buñ ne yonent bi nee na nangam ku ko def respecté nga yonent bi ku ko deful respecté bi jeex na tàkk leer na loolu mooy watu waqiruhu kon yàlla ñu yàlla may ñu respecté yonent bi yàlla nañu yàlla may ñu mën ko ñu bokk ci ña koy dimbale àdduna ak alaxira bu alaxira mu ñuy ndamoo naan ñu sama gaayaa ngi nii ñii ñoo ma jàppale ci àdduna yàlla nañu ko ci yàlla boole yàlla nañu boole ci ñu respecté yonent bi bëgg ko lool yàlla leen yàlla dimbale ngeen mokkal alxuraan yi ñëpp di ko jëfe wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu